wallaahi wa barakaatuhu eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci di leen ziyaar bu baax di fàttali na jataay bii ngeen gis tey ji ñu toog ko jataayu fàttali la ak fàttalante li ñuy fàttalee nag mooy li nga xam ne daawuñu dañ ci weeru màgg wu tedd wi di ñëw muy weeru koor daan ko amal fii ci barab bi ci ci péncum kër Serigne Omar Diop ci Njóobeen ci Mbàkke Bawol ci fii ci jumaa ji muy waxtaan yoo xam ne waxtaani koor lan toll ci fukki waxtaan ak juróom yoo xam ne yu faccantikoo la ñu koy jox borom xam-xam yu faccantikoo ñu ci woo képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu wala képp koo xam ne yaa ngi seetaan tele bii di Ndiovène TV di fàttali rek mboolem képp koo xam ne muy xarit muy wëllëre muy soppe muy kum mën a doon adaya yi nga xam ne yaa daan ko def ca yàlla rek tax nga daan ko def ñu ngi ñu ngi la ci soññ képp koo xam ne la nga ci daan def soo mënee def lu ko ëpp nga def ko soo ko mënuti la nga daan def nga def ko ci bañ koo wàññi ci bañ koo wàññi waral képp foo xam ne ab xarita nga fa mbokk nga fa julite nga fa ab taalibe nga fa ab dëkkandoo nga fa ñu ngi la ciy woo ndax suñu borom moo wax ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum nga xam ne da ngeen a gëm bindi naa ci yéen koor comme ni ma ko bind farataan naa ci yéen comme ma ko farataale ñi fi jiitu woon waaye jubluwu ci farataal googu lu dul rek ak ragal yàlla kon nag loolee nga xam ne nag moom la suñu borom farataal ci ñun moom la ñuy dënmal si muy weeru koor yu sell wu màgg wi yu ci yi képp koo xam ne yàlla dogal daa nga ca def sa alal ñi ci soññi nag eh, suñ Cheikh Diop mii nga xam ne eh, yàlla dogal ne moom mooy nekk ci fédération bi ak sëñ Moustapha bi waaye nag di soññi sëñ Matar mi nga xam ne mooy dajalee laaj yi eh, ak ak di di ko jàllale ak di teew yu mel ak yu mel noonu ak i xalaatam fu mën a nekkit bu yooyu yëpp moom moo di ko bàyyi xel doon ab jàngalekat la di di di di nuyu di soññ ci wàlla nga saxaafiya bi nga xam ne sëñ Birane mooy mooy jëwriñ ji euh, sëñ Cheikh Gueye imam di naay bam ñu ñëpp ñu ngi leen ci soññ seen taxawaay ak seen jëf ak nin ko daan àndee kenn ku ci nekk nga jëm cee euh, def lépp loo man ci xam na daal koor gi moom maanaam liggéey bi liggéeyu sëriñ Tuubaa waaye liggéeyu sëriñ Omar borom penc mi la ni nga xam ne noonu lañ ko daan doxalee ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci def ko maa ngi sant ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, mbokk yi kon nag dégg ngeen woote baa